salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyoo di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp di rafetlu teewaay bi ak taxawaay bi lii li ko waral nag ama suñu xarit yoo xam ne dañoo àndal guddi ak bëccëg muy Thierno Diop ak Modou Wade moo waral lii moom la doon defal ñaan tey na ko yàlla nangu waaw moom waral lii quoi léegi nag euh, ñu ñoo ci boobu ba léegi ñun ñoo ci ànd ñi nga gis ñi ñoo ci buñ juddoo ba léegi ñoom ñoo ànd ba léegi nag bàyyiwuñu quoi kii moom la doon àndal di liggéey moom àndal di liggéey boobu mooy ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul fu mu taxawee fu ñu taxawee moo ngi taxaw suñ suñu wet tamit quoi moo ngi noonu daal Aliou Sarr lañ bëggoon xama kaddu yi xamal dama doon nuyoo nii rek pour xamal rek mais Aliou Sarr daal xama moom mooy suñu kaddu moom laa bëggoon mu xam nga waaw jottali lépp daal wax moom bu waxee rek daanaka lépp mat na quoi jaajëf gaay salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ku ci nekk fi teew ñu ngi lay sant di la ziar di la ñaanal waaw li waral daje bi nag ngañ wax na ko quoi ñun dañuy mottali rek waaw comme taxawaay bii nga gis nii lañ àndewoon démb ak ki démb suñu borom mi ñu sàkk nag a ah, ñu ngi koy ñaan ñi fi ne mu yàggal leen fi lool ñi jiitu moo waral daje bi waaw ñu daje fi nag di lañ ñaanal wàcce nañ fi kaamil imaam ak ñëpp ñëw nañu wàcce fi wàcce fi kaamil ñaan yàlla na sama borom jotal leen ci yoolu ñaan bi bu ngoonee incha allah fas yéene nañ fi wàcce eh, jàng xasida ah ñu mbokk tiijaane aussi mu yaatu ba ñëpp xaj ci ñu barkeelu foofu si ñu tëj bés bi ah lii nag dañ koy rafetlu ndax ànd moom nii la demee ñenn ñi dañuy jiitu ñenn ñi des fi mais ñu fi des tamit mënta ñàkk comme ni ñu ko taxawee yàlla dooleel ñu may ñu xalaatu ñu bañ leen a fàtte te niñ ko tàmbalee ren parce que daaw rek lañ fi jóge ah ñu ko tàmbalee lañ ren ñu ñaan suñu borom ci yërmandeem ci kàttanam mu dooleel ñu yokk xéewal yi ba niñ ko defee ren ñu def ko ba ilaa mi din hmm. waaw yàlla jotu leen ci yoolu ñaan ci yoolu ñaan bi di rafetlu taxawaay bi aussi hmm. parce que kenn manqué wul hmm. gaa yëpp ngi nii ngañ def na présentation bi mbooloo mii nga taxaw mbooloo mii taxaw nii ñoo àndoon comme ni ma ko waxee ki nga xamante ne moo nekk nii moom la nekkaloon di liggéey wax dëgg yàlla man maa ngi ko gisee woon ci ba muy jël soxna te ba léegi maa ngi koy gis fu dajee waree rek mi ngi ñëw taxaw kon dañ koy ñaanal moom it yàlla yokk wërsëgam yàlla yokku te parce que àdduna nii la kóllëre comme niñ ko suñu bàyyi waxee sànq rek du ki nga nekkal fii rek ki dem tamit jiitu la war nga ko mën a fàttaliku ci ay ñaan parce que loolu rek lañ leen desal quoi pour bañ a guddal rek maa ngi rafetlu taxawaay bi parce que ku nekk rek ci ñun wax dëgg yàlla lépp lu la ci waroon rek def nga ba def loo xamante ne sax kawe na suñu njortu ah dañu ñaan suñu borom rek mu doolal ñu ba saa ne rek mu doolal ñu kattanal ñu ah ba luñ ci def ren rek suñu borom dooleel ñu bañ def ko ël euh, déwén lu ko raw di ñaanal suñu papa ji nga xamante ne moo nekk suñu gannaaw tamit euh, di Badou Ndiaye moom it taxawaayam rafet na ndax doomam moo nekkoon ak Thierno di liggéey mais wax dëgg yàlla taxawaayam saa su ne bu daje yu mel ni amee ni mu ci war a taxawee rek lay taxawee dañ koy ñaanal yàlla aussi yokku ko wér may ko gudd fan ba taxawaay bu ñu ciy taxaw di gestu di ko giseek mu yàgg ñoo gunge ci bés bi franchement kontaan nañ ci bés bi lool lool lool di ñaan suñu borom lépp loo xamante ne yéene nañ ko ci rek di ko ñaan suñu borom defal leen ay leer fa ñu tëdd ak mbooleem ku nekk ci biir suuf suñu boroom yërëm la booleel ak malaakam de xare la àjjana yi gën a kawe wax nag dafa jafe. mais nag bu ñu la nee yaa ñu day moom xanaa da ngay jéem rek ba sa fu sa xalaat yem rek mais liñ yéene woon pour wax ëpp na lii di ñaanal suñu papa Baye Gora nga suñu ndijaay moom it wax dëgg yàlla gu gunge nañu ci bés bi Baye Mbondi rek ñi ngeen mënul gis mbooleem ku ñëw ci bés bi daal gis nañ la grand allié Guèye ñëpp rafetlu ñan taxawaay bi di ñaanal dëkkandoo yi di ñaanal am di jàmm di ñaanal ñëpp yàlla na suñu borom nangul ñu lépp loo xamante ne ñaan nañ ko fi e, jotale leen ci yoolu ñaan bi ci barki alxuraanul karim barki seydina Muhammad sallallahu solo ndax lii dafa bokk ci lii defar parce que lu baax boo koy def doo ko yemal fa nga koy defee war nga koo def ñu jël ko ba mbooleem koo xam ne ànd ak ànd naag nit mu jiitu ko mu xaw koo fàtte war na cee mën a yedd boppam kat que ne ñoom ñi ngi fële tëdd mais mel na ni ñu yëg ñun loolu faaw ñu ci bàyyi xel kon yal na yàlla yërëm leen ah, ah, leeral seen bàmmeel jërë ngeen jëf